conseil constitutionnel Si 15 février y a une décision Nous avons élection l'élection organisée dans les meilleurs délais meilleurs délais il y a plus brefs. délais. il faut que mu Les meilleur délai moi, président ou les autorités compétentes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 nous reporter l'élection. Nous avons un ay candidats qui ont été ne ñoom ji lu bëgg nen mais pour lan à quelle fin alors que l'intérêt est mi moo ñu que a pétrole et le gaz buñ technique. constitution Sénégal mon que les ressources naturelles appartiennent au peuple donc nous avons nangu pour des intérêts crypto personnels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 conseil constitutionnel si un pouvoir, acteurs yi dem leen concerté wu date consensuelle société civile opposition parti au pouvoir ñëpp neen ñu waxtaan Nous date yemb bu nga wax organiser Sénégal c'est important Nous savons looloo waral ñi ngi wo ñep pour que ñu dem répondre ci dialogue bu nga xamné président de la république son excellence Macky Sall lancé na ko loolu laa wax di kontaan lool également ci décrispation bu nga xamné ne jamono ji amna ci réew mi xamné amna ay téeméeri téeméeri euh, détenu yo xamné